lislaam diglewu ko ayda su ko defee kon ñu ngi koy jéggalu ci loolu ne yu mel noonu daal mun nañ koo fànq saafara ko defer ko ba mel nim nim ni yàlla bëgg mu mel te fekk sax ŋaayoo du ci am wala yeneen yi ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm. waa jërëjëf eh, beneen laajte bi ma fi am nag mooy borom mu ne. Mhm. Eh, boo jullee ba pare bay taaya. Mhm. mu ne taaya bu mujj bi waa xaaral ñu jël ki ci line ñu ko asalaamaaleykum asalaamaaleykum seen waxtaan bi neex na waaleykum salaam jërëjëf maa ngi nuyu suma caamee bi oustaz Dramé jërëjëf seen waxtaan bi neex na jërëjëf hello jërëjëf waaw ñu ngi laa dégg seen waxtaan bi neex na mm-hmm. jërëjëf yéen a ki jógee wax léegi parce que li nga sol dafa yiw baax na jërëjëf euh, jërëjëf euh, buñ ko loolu waaw bokkul ci waxtaan wi waaw incha allah moom xelam moo toll euh, foofu waaw waaw ñu laajte leneen rek lu aju ci mbiri guddi gi incha allah waaw ak leneen daal lu ñoo jëriñ foog naa ki nga xam ne waaw ñu jël ki ci laaj bi asalaamaaleykum asalaamaaleykum waaw

panel bi nga dara loolu laajte ci mbiri laylatul xadar bi mu <laughs> waaw ñu jéggalu ci loolu daal waaw ñu jublu ci euh, leneen incha allah eh, li moo laajte mooy taaya bu mujj bi waaw bu fekkee ne julli nga ba pare mhm. taaya bu mujj bi mhm. mu ne lan nga fa war a tari gannaaw taaya bu njëkk bi su mujjanteeli taaya lan mhm. nga war a tari foofu euh, bugg nañ jullit bi buy julli taayam bu mujj gën a gudd taayaam bu njëkk kon boo taayaa sa taaya ju njëkk ba yem ci wala ibadillahi saalihin wala nga ne nga dem ba ci abduhu wa rasulu sa taaye ñaareel boo ñëwee da ngay dooraat attahiyaatu lillah bem jeex nga yokk ci nag salaatul ibrahimiya mm. mooy allahuma salli ala wa ali muhammadin كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سوسل ملي فوف باخنا بوتي يوكي ربنا آتنا في دنيا حسنة بام نسل ملي باخنا أمنا نيان يباري يتشارط لو منا دفرك رك su boba julli ge dina wir ayda ta mhm. dina bax mhm. wa inshallah lool amna solo dafa am ku nek ci line assalamu alaykum asalaamaaleykum waaw kooku dem na oustaz ñu continuer ci ngëneeli guddi gi waaw mu nga kon Aida comme niñ ko waxee rek mhm. euh, dog boobu ñu joxe benn la ci ngëneel yi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa joxoon na ko njabootam mhm. jox ko Aïcha jox ko jullit ñi mhm. ne baril di ko wax bu ñaareel bi it baril di ci wax laa ilaha illallah lu am solo la ndax yonent bi noonu na salaamaaleykum asalaamaaleykum bismillah hello hello mhm. bismillah asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah oustaz sa taalibe la mbokk mi kan la ah mbokk mi eh, damaa lépp maa ngi UK Eh, mu nga Angleterre waaw sa taal bi mu nga Angleterre la waaw waaw ñu ngi seetaan seen programme dafa am lu ma yu ma raw nag ah. léegi laa waaja nii ma si dëgg la mhm. waaw dama doon laajte am comme li nga gën a comme li ñoo gën a soppa si bisi leeratul xaddi bi mhm. pour yar a suura yi pour jànga ko mhm. dëgg la loolu laa doon laajte loolu laa bëggoon nga ko ca mu ne la waaw liñ bi rafet na torop di santa jërë Jere ngeen Jere jërëjëf ñu ngi nuyu mbokk yooyu ci bitim réew yëpp nekk ci Angleterre bu baax baax di ñaan leen ne leen seen diine liñ sopp ci nit di ko wax mooy ñaan gi ñu joxe léegi ci gannaaw mooy allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa faafu anna loolu moom lañ gën a sopp ci jullit di baril di ko wax ci guddik laylatul qadar amut nag ñu ne la lim bii la mhm. da wax ba sonn mhm. baax na it nga nga ngay baril di ci wax laa ilaha illa allah laa ilaha illa allah ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na afdalu ma qultuhu ana wa nabiyuna min qabli laa ilaha illa allah li gën ci li nga xam ne wax naa ko yonent yi ma jiitu woon wax ko la ca gën a baax mooy laa ilaha illa allah kon baril di wax laa ilaha illa allah ci guddi gi loo ci man loolu tamit lu baax la naka nonu jàng ci alquran it budé man nga alquran baxna baril ci naafela hit ci guddigi gi loolu tamit baax na ci muné waxit astaghfirullah al asim allasi la ilaha illa huwa wa atubu ilayhi loolu tamit baxna nga def ko jurom naar fukki yoon la ilaha illa wa atubu ilayhi astaghfirullah al azim allasi la ilaha illa huwa wa atubu ileyhi loolu tam boo ko ci munee boole wirde ko juróom ñaar fukk yoon loolu tam lu baax la waaye bi ci gën a am solo nag mooy biñ la wax ci gannaaw yenent bi wax ko dinaa ko baamtuwaat mooy da ngay wax ne allahumma innaka xafuwun karimun tuhibbul xafwa faafu hanna allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa faafu hanna loolu mooy ñaan gi loolu am na solo mm. eh, ñu jël keneen ki ci laan bi salaamaaleykum waaleykum salaam leen di siyaare kontaan nañ si programme bi trop. ah oustaz Dramé. naam. kontaan nañ trop. jërëjëf. Euh, kontaan nañ trop ñu ngi lay ñaanal yàlla yàlla yàggal la fi. amiin yaa rabbal aalamiin. yàggal taxawaay bi. amiin yaa rabbal aalamiin. mel na wér ak wér la. amiin amiin yaa rabbal aalamiin. kontaan nañ trop daal oustaz Dramé moom daal yàlla rek mu la mën a fay kontaan na trop moom. jërëjëf jërëjëf jërëjëf. waaw loolu daal loolu ko la jërëjëf waay Dramé. jërëjëf waaw kay jërëjëf. ñu koy sant bu baax a baax di ko gërëm kon Aida ñaan yooyu mm-hmm. euh, mooy ñaan yiñ ci war a def mm-hmm. euh, faxe ba guddi gi daal ñu dundal ko mm-hmm. ci jaamu yàlla guddik jaamu yàlla la loo mën ci naafe la nga def ko loo mën ci astaxfirullah nga wérde ko baril astaxfirullah ndax alquran dafa wax ne istaghfiru rabbakum innahu kaana xafaara wax leen astaghfirullah jéggalu seen borom yàlla jéggal leen seen bakkaar naafila gi moom ay par julli ay ñaar rakka sëlmal ñaar rakka mhm. moom mhm. mu ngi tàmbale ci ñaari rakk mhm. ba kemt laayu li nga man nag dëgg la boo jullee ñaari rakk sëlmal julli ñaari rakk sëlmal boo sonnee ci loolu jàng alquran xaw ma dafa am ay saar yuñ ci soppa wala. Eh, ndax Fatiha saar boo def rek. rakk bu ne na nekk Fatiha ak saar. saar boo mun rek moom nga ciy jàng ayda. loolu lañu ñu alquran wax. Mhm. faqra'u ma tayassara min alquran. kon bul forcé di jàng loo xam ne mënuloo ko. waaye li nga mun ngay jàng. rakk bu ne nga jàng ci Fatiha ak saar. Mhm. su ko defee ñaari rakk yoo am sëlmal. السلام عليكم السلام بسم الله عن واو أنقول فعل بسم الله واو من سمعت ma la tëb mooy comme jigéen